وسلت الأسمان من الخدير وهو بحمدي وسكوني جدير صلاة من له البرايا ترى على الذي خاد إلينا البر لأحمد المختار رمتم الشهاد ممن به سيري إليه ذو انتهاء تسليم من أغنى عن الأرباب على الذي أغنى عن الأسباب أطلب من رب الورى لغيرهم خير سلامين به مع ميرهم لطيف وجه لطفك العميمان إلى عبادك معا غموما أنت الكريم والرحيم كلهم بما يناسب فأنت ربهم سب سعادات واجري والجزاء يا شاكرا مني خبلت الرجزا مدتني منك مواهب الأحد بلا لخاء من خلا ومن جحد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 sa bët yi ngay gise xooy xol mbàkke yow mi la ak sa nopp yiy dégg ndee laa la far ragale sa bët yi ngay gise ay xol mbàkke yow mi la ak sa nopp yi ngay la ak sa nopp yiy dégg ndee it laa la far ragale yow yaa ngi gis xol yaa ngi yi yow yaa ngi gis xol yaa ngi dégg wax yi nu wax te ni déggoo gisoo nii doy na laa wagale fuñ njëkk yaa nga fa fuñ jëm ñoo ngi àndu di rëy àndul ma daw moo ku lay daw sax lu koy rawale fu njëkk yaa nga fa fu ñoo ngi ànd di way andul ma daw moo ku lay daw sax lu koy rawale fu yaa nga fa fu ñoo ngi ànd di way andul ma daw moo ku lay daw sax lu koy rawale jagam ngaaya bay naa la xal seeta añ ku xam ngaaya dul bay fu ni nekk kon bu fekkee ni yow Bàmba may yi nga yor ñu baax rekk ci jot na ngay def ñu bon bu fekkee ñi baax amas lef ci yow ñi baaxul lu ñuy am ci yow mii fi gën te yaa yor ca gaa yi baax ak yi bon faral jox ma jox ñépp jox ñii fi man du la fa tax ñu jóg ñëw ci yow lu dul sa yërmaande yërmaande lañ seenu nun te noo ngi di yalwaan akay wut ci yow ngërëm mucc ak barke ak gudd fan te balaa kenn am lëf ci man dafay mel ni man bun yaboo ñibbi kon te balaa kenn am lëf ci man dafay mel ni man bun ya ñibbi kon ne yow doomi nit déewti mel nii nga mel te naa ni wax ñi sore naa ki fen te yow doomi nit dootu mel nii nga mel te naa ni wax ñi sore naa ki fen waxal ci mbas mi senin ñaa ngi jee tinul ñëpp yow boo ci noo yàlla tin te ñun ñëpp a ngay yox yoxee kay ragal jógaram mu baagam yi dem dit ñi bon ab sàmm bu ne ci lu jur gépp dee bu jur gépp deewee lu muy sàmmi kon ba ñuy dëddu kër baaya kii ndey di ñëw wutug mu a tax ba kon lu ñuy wut si kon ba ñuy dëddu kër baaya kii ndey di ñëw wutum mucc a tax ba kon lu ni wut si kon ba ñuy dëddu kër baay lay di ñëw wutum mucc a tax ba kon lu ni wut si kon sëriñ bi waaju ko musoon mu musula koo mën a tee mu tax mu saf la sëriñ bi waaju ko musoon mu musula koo mën a tee mu tax mu saf la sëriñ bi gaayu ko amoon te ñàkk ko kuñ mën ñàkkit du tax ñu faale ko sëriñ bi gaayu ko amoon te xewle ko moo tee ñu dëgg mu far di jooy ba fekk ko sëriñ bi waa këram ña nekkoon njaarim seen xol ya dootu gis rëy bam njariñam sëriñ bi waa këram ña nekkoon njaarim seen xol ya dootu gis lu rëy bam njariñam sëriñ bi waa këram ñi nan leen warmaal te fonk leen def leen ndey bu kenn laal sëriñ bi zaahir si dafay melawu nit baatin ba lépp yàllaay du leen nit sëriñ bi xar yàlla feeñal amul nduroo ki nawle baa kuy feeñal sëriñ bi doomam yi nan leen di leen siyaare mbir yi bun ko juutal sëriñ bi cam soo ko xiyaas mu yees ko te moom palaas boo ko wutal mu fees ko sëriñ bi yow xeetoo la ak malaaka te doo rawaan doo jinne doo musaaka sëriñ bi yow ndoroo la ak saxaaba yaa raw ña daa xol di janoo kaamba bi yow yaa jiitu gaay diiwaan yaa ña daa feeñali mboot di baawaan sëriñ bi yaa gaaya daa fanaane xaras di xuus ci dexi yay naani sëriñ bi jéggi nga palaasi xutbu ngir sàkk ngay xaw soyu sàkki xutbu serbiya wonduroo wala gilaani fafoo nurook saadani baati jaani sëriñ bi yow yaa boole mboolem ngir yaa ak atte yaa ak sañ-sañ ya ak seen leer ya sëriñ bi yow jàll nga ngirum wirdu yow sam mu xaddam du jubooki ardo sëriñ bi weesu nga mbirum wilaaya خم خم بيت رونا خمك درايا شري بيوم نلو ولا أغوانيو ففون روني وات أغمهديو شري بيو يا لان لا نبيا نكون كل وفرنيا نبيا